nee na kuy joxe loxo nag ndax a nekk xalifa. nee na bu fekkee nekku fi. jigéen ñi ginnaaw lañ koy na jigéen ñi ginnaaw lañ koy féete moom Cheikh Tidiane. jigéen ñi nee na. bëgg ko naan ñi nee nañu. bëgg nañ bëgg nañ nangam ak nangam. gersu de. du gersu de. wax leen nangam ak wax leen nangam ak nangam. xalifa Cheikh noonu lay mel. xalifa Cheikh noonu lay mel boobu tëb bis yi. nee na du jigéen. doo am benn cër ci nee na boo kooku doo am benn cër ci tariqa bi. nee na boo demee ci al yaqutatul farida. Ah. Ah. waaw waaw mën na ko téye ah. maama sa yed Cheikhna yeddam rahi allahu akbar loxol cheikh mustalaal loxol jigéen nee na loxol cheikh Tidiane mustalaal loxol jigéen te moo gën a sàmm ñëpp am na garanti du ñaaw nee na am na garanti du ñaaw moom sa taalibe daw yi sax sax nañ ci as nee na mu xanaa ñu taalibe daw yi sax nañ ci as doxal wér du normal nee na kuy doxal wér du normal wasifa normal wasifa normal xadra normal xadra normal boo jógoon di njaaloo boo jógoon di njaaloo ji du sotti du sotti nee na foofu la garanti bi nekk. maa ngi ci tariqa Cheikh. nee na waaye maa ngi ci tariqa Cheikh. heure boo bëggee mooy yàlla mooy yàlla. heure boo bëggee mooy yàlla mooy yàlla. wérul wérul. dëgg de. na waa joo na am na waa joo xam ne. nee na damay xëy na tey moom ci guddi fokk ma ñaaroo. nee na day xëy na tey ci guddi moom foo ma ñaaroo. day wër ba fa yor ba am na day wër ba fa yor ba am dara. am keneen koo xam ne. nee na am daa waxtaan ak ndaw si. ne ko palanteer bi du ma ko tëj. ne ko palanteer bi du ko tëj. boo boo fëggee ma nee na boo ñëwee boo fëggee rek ma ubbil la. ndaw si ñëw fëgg ba koñ bi yeewu. nee na ndaw si ñëw fëgg ba koñ bi yeewu. waa ji yeewu waa ji te yeewu. <laughs> te nee nelaw nelaw yu noonee noonu taree noonu mu xëy mu xëy attaqué ndaw si foog ne daf koo war foog ne daf koo yow ma yem. ne ko yow da ma yem. li ma la jox ak li ma wax. li ma la jox ñëw kër ñëw kër ga. ndaw yow yaa ma yem. ne ne na ma. ndax weer na ma. koñ bi yëpp xam nañ ne ñëwoon pour ne mu waa ji ne ma si dogu. nee moom dogu woon na am na lu dox ci diggante bi de.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 waxtaan wuñ tàmbale woon muy wuñ ñi lënt lënt sax du lënt lënt ndax mbirum bàyyi moom leer na ku ci bëgg andi lënt yow yaa lënt comme ni yàlla waxoon alquran amul sikk waaye am nañu si sikk mais ñoom ñoo sikk mais alquran moom andi na ay baraahin ak ay lay yu leer nañ yoo xam ne nii ku ci xool doo si sikk mais nit nag mën na am sikk ci biir xolam moom ba du gis lay alxuraan yooyu jant bi jant la di la gumba gisut ko bàyyit mooy xalifa si Tidiane mooy borom faytu bi di la xamit saar yàlla xeñ mi moom gisul loolu alhamdulilah bàyyi kenn du ko sopp lu ku sopp yàlla ndax ñoom la nekkal kenn du ko bañ lu mooy ku teexaadi rek xamit <coughs> saar moom nag dafa mel ni moom la jëm ci xërëm la gën a bëgg maanaam dafa bëgg dafa bëgg ab ndax booy jaamu sa bakkan war ngaa mën a bëgg xiram yi waaw kuy jaamu bakkanam war naa mën a bëgg xiram yi ndax xiram mooy yàlla ji gën a bon juñ jaamu si kaw suuf moom moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax te waa jooju dafay jaamu bakkanam li war ne dafay jaamu bakkanam boo ko déglu rek xam ne torax na bu yàgg lu ko neex lay wax da koy déglu gis ñàkk teggin gi nekk ci làmmañam tinkeeku gim tinkeeku fecc làmmiñam dal ci deru wëlli yàlla yi yi nga xam ne yàlla daf ko tooke nga xam ne kii ku texadi la ni muy waxee rek boo xoolee nga xam ne ku texadi la ku topp bakkanam looloo waral ba mu toppee bakkanam mu jël kilifa yu màgg yu baaxee li ne xubal sax moo leen gënal kilifa moo moo gën kilifa yooyu maanaam moom xubal la gën a bëgg xubal ab xiram la bu ñu la jaamu ci mag Amit Sarr moomu Abdou Amit Sarr moomu mu ne xubal moo gën gaay <clears throat> maanaam ab ku ne la bu demee ba jël xiram teg ko ci kaw mbokk julitam kooku war nañu xoolaat ak jullitam man nag du ma ko waxee la comme moom ni mu wax gars yi en tout cas xotti na ijma loo xam ne benn jullit mosu koo wax am Abdou Amir moo wax na ko ndax wax na ne ku benn xadis ci Buxaari wala ci muslim wérul rek kooku xeefeer la bal sax taalibe Baay dem na may leen cëm génn ngeen ci diine ji mais <laughs> ni moom moom ji waaw léegi nag yonentu nee na ku wax sa mbokkam jullit xeefeer la bu dul xeefeer rek yow xeefeer nga def naa ne ñu ñu déglu ñëpp d'accord nañ ne nga jël benn xadis rek ci Buxaari wala ci muslim na wérut du la ci lislaam moom ndax am na ay borom xam yu mag yu ko def borom xam-xam yi sax ñu si bëri dañoo layal xadis ëpp ci Buxaari ak Muslim waaye Ahmad ibnu Hanbal Yaxya ibnu Maïn dégg nga Ali ibnu Madini ci seen jamono ñoom kam kàngam lañ ci wàllu xadis ba leen Buxaari andee téeréem bi sepp leen si ñeenti ne wérut kon ñooñu si diire Abdou Amir Sarr moom ñooñu xeefeer la ak ñeneen ñeneen hmm? borom mu xam yi dañoo défendre téere boobu fonk ko layal ko waaye waxuñ na nag nag amul benn xadis benn xadis bu ko si ni jëlee la kooku Abdou Hamid Sarr moo ko wax léegi nag ñooñu buñ dee xéeféer kan mooy xéeféer ah yonent di wax moo tax dëgg-dëgg waa ji <coughs> yàlla daf koo weer ci waxtaanam boobu waxtaan wi yàlla wax naa démb ne eh, yàlla daf koo seedaloon ne narkat la moom ñi mu tuumaal njaaru soo dafa mel mu ngi bëgg a bëri nit nag gars yi nag nit moom jikkoom lay lay tuumaal nit ñi. Ah. mel daal dafa yaakaar ne ñoom la ñëpp mel. Hmm. en tout cas daal jigéen a ko fa yóbbu moom yomb na ko wax moom man nag tuumaal mu ko dara waaye daal yomb na koo wax dafay nekk si jigéen ñi yomb na ko wax te amul seede kon kooku alquran seedeel na ko narkat tuumaal na ay mbokki jurit kéeféer te mbokki jurit buñ nekkul xeeféer xeeféer gi ci kawam lay daanu. jël na xëram gënale ko ci kaw mbokki jullitam yonentu waxoon doy na doy na rek nit xay mu xeeb mbokkam jullitam <coughs> te ku dem ba jàpp ne yow xëram la gën moom moom jàpp na ne moo la gën borom xam-xam yi ñu wax ne ku baax sax doo jàpp ne yaa gën xéeféer ndax xamoo fan ngay mujj xamoo xéeféer bi fan lay mujj xéeféer bi mën naa dee ci lislam yow mën ngaa dee ci kéeféer kon waroo gënale sa bopp ci kaw kenn boo demee ne ba jël mbokki jullit yoo xam ne ni ay jullit yu baax lañ ne sax moo leen gën yow xam nga ne rëy nga xeeb nga mbokk jullit xay wi nga nekkee doy na xay kon waa jooju risque yi nekk bëri na yàlla seedal na ko narkat la ci alxuraan ah, yàlla ko wax narkat ci yàlla ngir jëf ji mu jëf narkat ci yàlla moo koy def yonentu daal nee na boo tumaale sa mbokk jullit xéeféer du xéeféer yow yaa moom tumaal na ay mbokk jullitam xéeféer te ñooñu moom leer na ne duñu xéeféer waaw ku wax nangam rek xéeféer nga te loolu yàlla waxut ku yonentu wàcciwu ko moo tax torox dafay feeñ torox dafa am gis nga bu nit bu noonu wali yàlla boo dégg la waxam rek xam na dafa torox kooku mooy Abdou Hamid Sarr léegi nag <clears throat> maanaam dafa boole ñaari bokkut di xas nit kontur ko di tagg soppeem bi bi nga xam ne nii moom waajee rek la bëgg maanaam moom nee na day tagg Abdou Aziz Dabakh bëggut Dabakh bëggut kenn parce que mënul bëgg Dabakh di bañ baay Dabakh moom it wëlbatiku di tagg baay moom. maanaam Abdou Hamid Sarr nee na dafay xas baay di tagg Dabakh Dabakh na ko déedéet Dabakh moom di bind am jotu di bind xasida di tagg baay doon gisee ak moom kon dañuy xam ne moom mooy nar waaye la sëñ Abdou Aziz Dabakh mooy dëgg wax mooy dëgg. moog li gaa yi mel rek maanaam da gis ñoo xam ne dañuy tagg yonent yàlla Iisaa di ŋàññ yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla di tagg yonent bi moom baax ba muy tagg baay def na ko yaa nuxbatal ulama yow tànnee fu borom xam-xami Abdou Aziz euh, Amir Sarr moom moom jël xërëm teg ko ci kaw ki nga xam ne da baax ne mooy tànnee fu borom xam-xami kafil masaakini yow làqwaayu miskini bàyyi moo doon làqwaayu miskini danaan am alal ju bëri jox ko nit nit ki di tiit hmm? benn shérif mos na ko gane si bàyyi yoru dërëm ak ni ko àddina bi jublu see <coughs> bàyyi dërëm mu génn dem ca marché ba mu Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu ànd ak shérif bi ba ko mbooloo mi gisee rek dajale xaddiya ju bëri jox ko fekk mook shérif bi bañ toogee ci néeg bi néeg bi dafa am benn benn wàll gu xaw a daanu si kii chérif bi yaakaar ne bàyyi lii mu yore da koy defaree néegam bàyyi yow jox ko lépp na ko jëral lépp saatiye la ba may ziyaar yoru moon dara lii la yàlla andi jox naa la ko nii la tabe woon chérif bi na ko déedéet yow sa néeg baa ngi nii di waaj a kenn ci doomam mi wala ci sëtam mi daan na ko soññ ci defaral sa néeg defaral sa néeg mu ne ko balaa maa tal defar sama néeg ma defar jumaa yàlla ji ba pare loolu la bàyyi doon wax loolu wax balaa maa defar sama néeg ma defar jumaa ji ba pare ba mu defaree jumaa ji defar école bi tegul ci lu may raw dàmp radiyallahu waaye talu woon néegam moo tax sëñ Abdou Aziz da baax mu baax ma ne ko yow yaay làquwaayu miskin yi cheikhul machaayix yaay sëriñu sëriñ ci fi islaam yi ci lislaam wa diine ak diine ci waxuma la ci leneen ci lislaam bi ak diine ji yaa siy sëriñu sëriñ ci kon boo xasee sëriñu sëriñ ci xas nga sëriñ ñëpp منتصر ابدا ابدا من سار من تصرين سكدو مكو فازي ابدا من سار قصنا سرين سيب ليلا ابدا عزيز سي دباخ مباخ ما وخ شيخ ابراهيم الدلال يا سرين سرين تي الاسلام اك دين nga xas ko ko tuumaal ko lu ñaaw te yow sëriñ bi nga fonk di ko tagg moom seede safaanu li nga wax ci waaja tag ko sëriñ ci daawuñ maslaa ci wàllu diine de déedéet ñoom diine daawuñ ci maslaa ku nekk ni nga mel rek lañ lay askane ci diine léegi nag bu fekkee dafa xas bàyyi ak waa këram su lu ñaaw lañ nekkoon lu ñaaw ku ko rafetlu rek bokk nga ca ndax ku xoote jëmee ci lu bon rek da bon kon na xasaale ay ay ay sëriñ mu ne ko sulaalatul xutbi abdillahi waarisuhu yaay doomi xutbu ba abdullahi te yaa ko doon kon moom seedal na bàyyi xutba خليفة الشيخ يا خليفة استختياري برهان البراهين يا إلهي إلهي أبا الزبيح يا إباي زبيح مو إسماعيل الذي بها خمني آيات أي كاتف بحرات نرنا كل نقول بولم قلي بلا ريب شرير سك وتخمين أغنطلي يو ليس كاتف نرنا قليب وانا قلي باحي وانا قلي ملني قلي عبد الحميد ساري كوكو مو هل كان ركتير عندك من دينونا ولي عليه <coughs> ليك naka lay sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh lu mel ni ngay tagg Dabakh di xas kam tagge woon tagg yi yow sëriñ yi sëriñ ci boo koy taggati moo tax amit Sarr ko alku da ko alku la mooy fekk wëli yàlla di ko ngaañ dégg naa ngaañ na wëli wu ne ngaañ na sëriñ Touba ngaañ na ku ne day saag waa Tivaouane sax léeg-léeg mu saaga am ñu ci sepp saaga leen moom daal dafa ni moom moom diine ji ko neex mu génne ku ko neex mu dugal da ngay dégg moom parce que mu ne cëm génn nañ ci diine <laughs> ndaw lu yomb jullit bi wa ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullaah dàq laa julli dàq laa joxe azaka gën laa baax nga di ko xas <clears throat> ana loo ko xase bàyyi amul luñ ko xase kon <clears throat> léegi yow xoolal ndaw ndaw waxi Abdou Amin Sarr jooju ngay jàpp wala boog waxi sëriñam bi nga xam ne moom lay du sëriñam sax parce que bu doon sëriñam dana yore jikko sëriñ mooy ki ngay roy waaye nag moom royut sëñ Abdou Aziz Sy xam ni waaye bàyyi la soppeem la woon mu ngi xas alaaji xas alaaji Abdoulaye la fi nekk ak Cheikh Ibrahima Dilan ak waa kër Abdou Aziz Sy Dabakh seeti safaan bu muy alaaji Abdoulaye xutbu la woon bàyyi nettali histoire sëñ alaaji Malick ak baayam ci kanam sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh ñëpp di dégg kaset bi ba léegi moom nag contraire yooyu lay wax di di sos rek ci diine ji damane ne dama ne <coughs> ko ku yàlla rëbbul bu fekkee si sëñ Abdou kii kon am Hamid Sarr Abdou Hamid Sarr moom am na ku ko tuddee sax Medd Medd Sarr waaye loolu ah mën naa am mu ngi noonu noonu la ko tuddee daal man nag du ma ko tuddee Medd waaye daal am na ñu ko tuddee li ma bëgg wax rek mooy sukkeeru ji naka lay taggee baay bu sukkeeru ji xasee tagg baay waa ji bu ngàññee du saf naar yi buñ taggee baay waa bu ngàññee du saf borom xam-xam yi buñ taggee baay waa bu ngàññee du saf laa wax du saf du saf luy loolu ji tagg na baay <coughs> seedal ko mooy xalifa Cheikh Tidiane ne ko bëri na kuy kuy kuy naaw di jéem a buuxante yow fekk fu nañ laaf bu yàgg bëri na koo xam ni mu ngi jéem a diir mbagg Cheikh ma te jegewu ko Sukayru jëne ko Cheikh Tidiane bu doon jaaro yaay yaay fasu bi fasu jaaro mooy li ñuy def ci kaw jaaro bi noonu loolu bu amul ci jaaro jaaro bi tuddatul xaatam tuddatul jaaro fatxa la tudd lay jàngal lu nga jaaro bu amul rek du tuddati jaaro mu ne ko Cheikh Tidiane bu doon xaatam bu doon jaaro yow Cheikh Ibrahima yaay fasu ba yaa tax Cheikh eh, eh, eh, maanaam ba xam mën na bu secret bi waaw loolu la ko Sukayru jëne wax ba wax jëne ñu ko daf ne ko Cheikh Tidiane bu doon jaaro yow Cheikh Ibrahima yaay fass bi su koy ruji xam nga ne du tagg kenn ci ay caxan lii la su koy ruji wax ci wax ci bàyyi bu bu Amir Sarr mu torox mi di waxee nga xam ne boo ko xoolee rek <laughs> da nga koy xaw a eh, waxee nga yërëm ko boo ko xoolee yërëm ko ah, ndax tekkiwut dara dara dara dara Amir Sarr moom boo boo waxee Abdou Amir Sarr xaw ma nu ko waxatee moom hmm? <coughs> kooku Abdou Seytaane la nag kooku bu waxee sukkeeru ji wax li du saf maanaam ma ne ngeen déglu waxi sukkeeru ji yéen laa wax yéen ngeen xaatir daf ne ko Cheikh Tidiane bu doon xaatam yaay fastu ba te xaatam jaaro bu amul fastu rek duñ ko tuddeeti xaatam du tuddeeti jaaro fatxa lay tudd kon bàyyi Cheikh Tidiane boo leen te rek yàq kanaa xam nga di yi xas Cheikh sax dañ naan bàyyi dafa dëgëral dafa dëgëral li Cheikh Tidiane indi ñoom ñaar la ñu bokk xas wala ñu bokk tagg mburoog soola boole naan wala mburoog suukar boole naan wala boole tuur rek benn lañ waxu sukkari juju lu bëri ci moo tax ma ne kii ab nit ku texaadi la encore <clears throat> li muy wax naan sëriñ dafay suufi dafay nangam bàyyi noonu la meloon ñaata ngeen gis ci lettre bàyyi bàyyi di wax ci boppam loo xam ne yow taalibe bi mënoo koo wax ndax wàcce gi mu wàccee boppam nit seet na ko ne ko ana sëriñ bi mu ko waxal sa soxla ku xam mu bàyyi sëriñ ba mu dee dégg ngeen fii Oustaz Birame Diop nettali waa ju ñu waxoon ci bàyyi lu ñaaw lu ñaaw a ñaaw ñaaw benn bis mu ànd ak benn mbokkam rek ñu dem teewee jotaay firi alquran bàyyi ñu ñëw toog waaye xamul ne sax kii mooy bàyyi xamul ne mooy sëriñ bi pour wan la ni bàyyi way faral boobu bàyyi di firi di firi firi firi firi ma neex lool waa ji toog parce que mu ne mu ne mu wax mbokk mi nag xanaa sëriñ bi dafa tukki bàyyi fi kéemtaane jamono ji muy firi alquran mu ne ko kii mooy sëriñ bi di mu ne nangam ndey mi ñu ma wax nangam maa Moussa Moussa gañu ko doon wax lu ñaaw si baay kii lañ may wax naan ay nangam day naan sangara lu ñaaw lu la ñuy wax ma ci moom ngam ndeyam gars yi waaye saaga kon bàyyi bu dee oyof ngay wax ba boo ñëwee doo ko xàmme moom loolu yàgg na koo dund kon na dem seeti keneen su fekkee kii nit kuy jàng di jàngale ñu taajal ku sees mu toog dama ne loolu ci lislaam la bokk Omar ibn Xataab mos naa gis benn waaye buy dox di yooyu mu duuma ko dóor ko na ko bul rey diina ji Omar mi nga xam ne moo gën a oyof ñëpp buy dox da nga yaakaar mbër la dëggat këcc la def waaw. yonentu moo ne tawaadoo li man taallimuun li man taallimuuna minhu na ngeen suufee seen bopp ci kanam ku ngeen di bokk na suufee sa bopp ci kanam ki ngay jàngee nag nga toog ci suuf Cheikh Tidiane bu daan waxtaan benn taalibam du njëkk wax ñoom dañ naan tekk ndax jox ko respecté ak xorma. waaye dem fekk ku nekk di mbër mbër wax déedéet taalibe dafay jox sëriñam xorma qum lil muallimi da danga jug pour màggal sa borom xam-xam loolu la borom xam-xam yi jàngale hmm? euh, Zeyd bun Saabit dafa mos a jullee néew champ bi nee na ba mu jullee néew ba pare ma jël daabam gi indil ku ko pour mu war ko ba ma jëlee daabam gi indil ko mu war ko Ibnu Abbas mi nga xam ne saaba yonent moom ñëw téye ci téye ci laxab gi di ko xommat <coughs> nii la gars yi fonk woon borom xam-xam xoolal gis nga ni ñu ko xormaale ah mu ne ma ne ko bàyyi laab gi yow doomu bàyyi tax yonent bi Ibn Abbas ne ko nii la ñuy nii la ñuy nii la ñuy digal ñu def ak borom xam-xam yi mooy ñu màggal leen ak ñu màgg ñi Zayd bun Saabit daal di fóon loxo Ibn Abbas bi tamit ne ko ñu nii la ñuy digal ñu def ak waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daan na wax ne jullit warul ñamas la ci dara lu mooy sàkk xam-xam maanaam di suufeel sa bopp. di wone loo xam ni sa amaana nekk gut ci yow ci saako xam-xam rek nga ko war def ndax xormaal xam-xam kii nag moom dafa bëgg a rey ji moom moom xamul sax teggi ni moo tax ay taalibeem du ñu am bu dee daal ñëw fekk sëriñ bu oyof bàyyi nit daan na ñëw du ko xàmme <coughs> ñëw ana sëriñ bi mu ne ko waxal sa soxla nit ñëw fekk fekk ko ci firim alquran naan naan xaa sëriñ bi dafa génn bàyyi fi kim taana jamono ji ne ko kii mooy sëriñ bi mu saaga ña ko doon wax lu ñaaw ci bàyyi parce que dañ ko yàq deram mooy li ma waa ji waxoon rek dafa am benn waay boo xam ne ab si yéeféer la judd nit ñi di ko wax si yonent bi lu ñaaw ñu ñu tàllal ko micro xam nga yonent yàlla Muhammad mu ne ah xaw ma ci moom dara de rek la fi nekkee parce que jàngut siira yonent bi ay noonam lay dégg lu ñuy wax ci moom lu ñaaw noonu la waa ji def si bàyyi hmm? amaa bu fekkee <clears throat> li mu wax ne Cheikh Tidiane dégg nga mosul woote sëriñ hmm? dafa toog toog toog toog toog ba yonent bi may ko ndigal mu door a woote bàyyi noonu la mel bàyyi nee na faydu bi xam-xam bi nekk na ci man diir bu yàgg mosuma ko woote nit mosul xam sax ne am na xam-xam bu nekk ci man bu nekkul ci gaay ba ndigal ñëw ma door koo feeñal boo demee yàlla may na ko kës boo demee eh, ci mm, nutoti madani Cheikh Ibrahima bind nañ ko fa mu gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gàmm 1929 milaadi yonentu feeñu ko direct na ko yaay borom faydu bi xaqiqatan ci dëgg-dëgg mbir mën naa feeñ ci ma jaas may ko ndigal na ko na ko wax ni ñëpp dégg kon dañ na ko fas daa bi maa tuumaru xotti lañ la digal bàyyi door a woote mais tëbbu tëb rek woote ni nga xamee ne wilaayatu nekk na Cheikh Tidiane waaye tant que amul woote wut bàyyi noonu la def moo tax bàyyi nit mën na ko tuumaal waaye du def lu wuteeg li borom xam-xam yi rëdd yonent bi rëdd ko amaa nag tënkul ci benn mazhab moom jële mazhabam mooy Malik waaye nag maftu ali borom xam-xam xam nañ ne du tënk rek ci benn mazhab topp ko rek lu mu wax rek mu ne noonu la xataa bu gisee waa ji dafa jum fi ndax mazhab bi kan mën wax ne diw moo wax dëgg waaye <coughs> du génn ci mbooloom borom xam-xam moom Cheikh Ibrahima di daan kon yonentu moo ko may ndigal mu feeñal tariqa bi mu door koo feeñal comme ni nga xamee ko bàyyi dañ ko may ndigal mu feeñal fayda bi mu door koo feeñal comme ni nga xamee ne Cheikh Tidiane dañ ko mu feeñal tariqa bi mu door koo feeñal ñi gëm-gëm ñu weddi weddi bu ko defee kii nga xam ne nii si sangi naari la bokk bokk ci chérif yi mooy Mouhamad Abdoulaye al Alawi تقنقن هو الفيض لا يخفى على من yaxfa فمن شاء ياتيه ومن شاء shaa وخص به المولى مدينة كولخ فكانت له دون المدائن مظهرا ومظهر هذا الفيض لا شك أنه تنال به الأيام عزا ومفخرا هي الفيضة العظمى فلا متقدم يحوم حواليها ولا متأخرا نلي ما فيه ku gis rek mbir mi du nëbbu ci yow da nga xam ne faydu bi feeñ na kum neex nag ñëw kum neex weddi loolu la yàlla wax mu ne yàlla jagleel na ko dëkk bi ñuy wax Kaolack mu nekk feeñ waaye faydu yi waris dëkk yëpp feeñ ak faydu bi ci lay jamono yi di amee te daa nga ak yëkkatiku fayda bu màgg bi doon Cheikh Tidiane wax ñëw na amul ku jiitu baay koo xam ne nii yoroon na fayda bi amul ku mujj bay ko yoraat fayda boobu jeex na maanaam naari ñoo ko seedali bu mu doon li ko kilifa yu mag yi bind ci moom xasida di ko tagg te nag li gën a yéeme bu ñu laan tagg baay booy liir xasida yi dañ naan la jàngale kan waaw moom seriñu tariqa la wala sëriñu euh, tarbi maanaam sëriñu sharia taalim la ndax sëriñu jàngale la wala sëriñu yaraati kan la ñu di ko tagg ne boo demee fekk muy jàngale naxu fekk muy jàngale bayaan fekk muy jàngale naxu ba pare nag ne euh, ku gis demal rek kaw boo demee da nga jëloon li lay wax loolu lañ la lan wax. seen jamono kon ñoom buñ taggee ba pare naa la demal xawal ak léegi nga dem xooli boo demee fekk ko mu toog di jàngale fànn yëpp waaye bu mbooloon tudd yàlla yi jotee nga gis leen ñuy tudd yàlla ba nga yaakaar ne ñi ay saxaaba yonantu sallallahu alayhi wa sallam bu jotee nga gis dégg nga ñu raw dégg nga ibnu xarabi alxaatimi ñu nekk ci wetam ah ma moo kii loo ci wax loo ci war a wax demee benn waaye boo xoolee xam ne boo ko xoolee mandargay tixaari sa feeñ ci kanamam ñuul kukk ñaaw hmm? <coughs> bañi xaw ma nu mel noonu sax hmm? bu waxee rek nga xam ne kii fuuti na fuuti na waaw muy wax naan cëm génn nañ ci diine ci xam nga loolu ku fuuti moo koy def taxaw wax lu benn borom xam-xam waxul ko wax ne benn xadis ci Buxaari wala muslim wérut xéeféer ku fuuti kooku dana tax ñun ñi ba jëf ji man damay wax ne daal bu demee ba yàlla di fay wax ba jëf su boobaa ñun mën nañoo bàyyi Cheikh Ibrahima di daanu jàpp ñu dem waaw bu demee ba yàlla di fay wax bàyyi jëf mën nañoo bàyyi Cheikh Ibrahima jàpp ñu dem <coughs> bàyyi waxuma la lu mu liggéeyal tarixa bi loolu moom ñëpp teg nañ seen bët xamul lu mu dugal ci tarixa bi fii dëgg dëgg bu fekkee senegal tarixa bi la ñu pogoyoo gërëm ko lañ war a waaye amul amul leneen luñ ko war wax ndax amul ko fi dugal boo demee da gis ne ci lislaam rek benn bis dugal na ñeent junney nit yoo xam ne xéeféer lañ ci dugal lañ ci diine ci lan la yonent bi wax benn waaye jubee ci yow <coughs> benn waaye jubee ci yow moo gën àdduna ak li ci biiram nga jubal nit benn waaye moo gën àdduna ak li ci biiram <coughs> du loon la yonent bi wax léegi ku jubal nag ñeenti junne xeeféer dugal leen ci lislaam ci benn bis rek laa am amoon leneen looy def naan dañ koy jéem a xas loo ko xase te xamoo loo ko xasee sax ndax yow li ngay wax si jikko loo wax si jikko yu baax rek boo demee fekk ko ci baay bu dee wane teraanga lislaam da nga koy fekk ci moom ba mu doy sëkk bu dee wàccee bu xam ak oyof da nga koy fekk ci moom doy sëkk bu fegu da koy fekk si moom moom doy sëkk bu ñu doon wax benn benn ni mu respecté sharia ni mu bëggee tarixa bi ni mu bëggee Cheikh Tidiane ni mu bëggee bëggee yonent bi benn bu nekk doy na ay émission te du jeex ana loo ci mën a wax te yàlla nag dama lay wax ne inna laa tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiban yàlla kum liggéey loolu dalaa nar a fay boo sellut doo mën a nekk liggéeykatu yàlla buy def résultat yu mel noonu ci lislaam comme am ndigal rek moo mën lool moo tax ñoom ñuy mbal mbali di wax yëpp duñ def li jege li bàyyi def danañ wax bu bëgg a dee mais mën naa benn nit sax duñ ko dugal ci lislaam kon bàyyi benn jotaay rek dugal na ci ñeenti junney xeebeer ci biir lislaam ba pare nag moo tax mu wax ne laqantu alaafa walan tuxaddaa kalimata tawxidi faatul adada wa daxala al aqwaamu fi tariqati wa wajadu al xeyra ala alxaqiqati sanaa ay junne baatu tawxid wala boog nga ne sana lim boo xam ne mënuñ koo compte baatu tawxid dugal leen ci lislaam mu ne ay nit yu bëri dugg nañ ci tarixa bi xam yiw fa qultu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu lilahu fa qaalaha alkufaaru walmajuusu walumara fa taabat annufuusu ma wax laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah xéeféer yi wax ko majuusi wax ko buur yi wax ko bakkan yi daal di tey kazalika annisaau fa tawxidu hunaka mansuuru liwa majidu mu ne naka noonu jigéen ñi wax wax nañ ko <coughs> maanaam maanaam ku defar góor defar jigéen defar buur defar mbaadoor noo mën a mel rek man dama daan wax na noo mën a mel rek gis ku la raw nekk ci wetu baay awa ma ma waaye loolu kooku lu ko nit mën a wax koo xam ne Cheikh Tidiane bu dee xaatam moom mooy fasu ba fasu moo tax ñu tuddee xaatam xaatam ah moom waxuma ko de Sukkari jee ko wax de day def critique Sukkari da ngeen dem xool ci luxa xaat jaaro bu amul fas nuñ koy tudde tuddatul sa xaatam nga bëgg a teqale ñaar yooyu moo tax ñu dégg-dégg nañ waaye ñu déggu dégguñ su ko defee mel nii ana lan la ci nit lan la ci nit war wax man daal affaire boobu affaire boobu jaaxal na <coughs> ku tabe la woon moom Cheikh Ibrahima Nilaanu ku bëggoon jullit ñi la woon amaa tamit maa ngi dégg mu naan Cheikh Tidiane ku fegu la woon dégg nga daraan moytu dajeeg jigéen ñi nangam nangam bàyyi noonu la meloon demal fekk leetar bi bàyyi bind ñaari taalibeem yu mag muy Cheikhaani ak Mouhamadul Misri di leen wax ne yelihi al i'lam maa ngi leen xamal ne bi anni amurukuma an tuzjira nisa an al xuruji li safar ilayna maa ngi leen di digal ngeen aaya jigéen ñi ne buñ tukki ñëw ci ñun illaa man kaanat minhunna maaha baaluha aw mahramuha lu mooy koo xam ne ànd nag jëkkëram wala xarmantem nii la fonke woon sharia wax ju ñaaw ju ne yàgg ko waxal waaye moom li mu wax leer na alladi yatakallafu bi muunatiha kuy jigéen bu demee bay tukki na ànd ak jëkkëram wala xarmantem buy taxawee mbiram wa illaa falaa bu loolu amul buñ ñëw ci ñun na jigéen ñi toog foofu بابري بن bind وي وما أذنت للنساء في الخلوة ساعة زورهن وقت الجلوة سوى الحلائل أو المحارم بمجح وخان يا أيها البنات زاحمن على نيل الأولى أما بأبدان فلا وخان أخصص أصحابي دواما على الذكر وفي مذهبي لا تذكر الخوض بالجهر دينغا فللسر أسرار وللجهر مثلها ويعلم مولانا الخفي من الذكر mu ne ma jigéen ñi ñu wéet man jigéen ñi waxtu wi ma génnee lañ ma war a ziare si lii la bàyyi waxoon waxu sax moom kii de <coughs> daf na ne bu ma nekkee man kese bu ma jigéen ziare si nañ xaar bu ma génn ñu ñëw ziare lii la bàyyi bind moom. moo tax wax naa la danañ ko waxal lu ne waaye moom nee na duñ ma gis mukk ma def lu ñaaw ne yéen jigéen ñi na ngeen buuxante góor ñi ci kawe waaye buuxante yaram moom dama ko aaye. mu ne maa ngi ñaax samay taalibe ñuy tudd yàlla waaye sama yoon moom jigéen juy tudd yàlla ci kaw bokkut ca kon moom jigéen ñi sax daf wax ñu noppi ñu lii la doon dénk jigéen ñi bind na jigéen ñi Mauritanie yi lu mel noonu ne leen ay xaritu góor ñi ngeen maanaam genn wàllu góor ñi ngeen da ngeen buuxanteeg ñoom ci maqaam ak ci lépp waaye ay buuxanteeg ci yaram ak xotti xorma yi yooyu moom aay leen ko ba ko def yuuxu ci kaw bàyyi na loolu aay naa leen ko bu leen ko def kon <coughs> defe na bu fekkee chef Ibrahima radiyallaahu anhu nii la meloon maanaam jikko ju joo wax rek boo demee fekk ko ci ñàngaleem bàyyi jikkoo baay la lu ñaaw na lu nekk ci yow nga bëgg koo tuumaal baay moom mën nga ko def parce que yow lu ñaaw la lu nekk ci yow nga bëgg koo tuumaal tuuma moom mën nga ko def yàlla sax mën nga ko tuumaal waaye nag lañ koy tuumaal du mu nekk dëgg hmm? Hmm. yàlla sax tuumaal waaye lañ koy tuumaal du fekk mu nekk dëgg Baye nii la meloon nii la baaxee woon nii la tabe woon ñoom nag dégg naa ko nag moom Amir Sarr moomu mu ne <coughs> dégg nga <coughs> mu ne mu dégg nga mu tudd si euh, bi xam yàlla moo ko tax a jóg dégg naa ko ci ci doxam ak ak kii mu naan xam yàlla dafa xam yàlla ak jinne ak mu malaaka ak bu nit waaye bu nit bi moo ëpp doole gannaaw ñoom bokkuñ ko ñu xam du benn yàlla wala yàllaay nit ñi yàllaay jinne yàlla malaaka dafa nekkul benn ba xam yàlla yi di wute mu ngi mel ni kuy wax na lislaam dafa am bu nit ak bu jinne ak bu malaaka te benn la benn rek dañuy rawante ci xam yàlla te jinne ji mën naa nit ku sàggan ki nit ki mën naa raw jinne ji malaaka bi mën naa rek waaye nag xam yàlla moom benn xam yàlla ndax benn yàlla mu am kon moom rek lañ mën a xam loolu dafay wane sori gim sori yàlla tey bu ñu waxantee dëgg rek wallaay ñoo ko yi wuteewul luñ xam bañ jàppee si tarixa bi li ibaadu bi li ibaadu bi xam rek loolu lañ xam ñu ñoom loolu lañ xam de dañuy waxante dëgg rek xamul benn xam-xam boo xam ne nii secret la seen diggante seen borom ñu xam ko te ibaadu bi xamuñ ko li ibaadu yi di xuus ci mooy la nekk ci kayit yi zahir yi loolu lañ nekk di wax ñoom loolu lañ xam kon tarixa bi xam yàlla ko tax a jóg ñoom bat xam yàlla ñam nañ bàyyi dof dof lu te wuti njub di nga xam ne ni ci la Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu euh, nekkoon su ko defee kooku mooy ku tabe la xoon ku baax la xoon ku xamoon yàlla la xoon naari tàgg nañ ko tàgg ko wane wane ak tabeem وانا اكتبهم اجمنا جهم بولا ماشي اي شريف اكوي تقنك محمد عبد الرحمن بن سالك بن باب العلوي لنا الشيخ ابراهيم خير مؤمل لقضاء حاج المستهام الاسي شيخ ابراهيم موي كي گنتي كيب كو نياكار بو فر حاجوي كو گيرم بجاق بولا مي بجاق لي اموتو لو ديف بو نيوي سي باي مو فاج حاجو في صدره كشف الحجاب وقد ترى في راحته غنى ذوي الافلا من ci dënnam bi ci la yàlla wuññee kiiraa yi xam yàlla gi nekk ci moom waaye ñaari tenqam yi ñi ñàkk bu ñëwee bu leen joxe ñu mujj omal yaa fawza qawmin qalladuhu fa innahum mustamsikuuna bi awsaqil aw amraas yi woonaa ay nit woonaa texey nit yi nga xam ñoo jàpp ci baay ndax ñoo jàpp ci buum yi gën a dëgër buñ doon wax tagg yi ñu ko tagg dafay waxaat ba ayuha cheikhu kaabatul abaadi عرفات الأوتار والأعراب معدن العلم منبع السر مرمى أعين الزائرين والطلاب سمرة السؤدد المؤسل والمجد ومفتاح باب كل حجاب بطنك لست مرتابا في خلافتك الشيء خولا مصغيا إلى مرتاب أنت لب اللباب ممن يربي وقليل في الناس لب اللباب تاجكو تاجكو تاجكو تاجكو يا بلواي خم خم يا جن يا مبوتشي mboolem ziyaarekat ak taalibe yi ci yow lañ teg seen bët yaay ki nga xam ne ni teggin yi ak aajo yi yëpp yow lañ koy andil ne ko man aw ma sikk sàkk ci wuuti gi nga wuutu Cheikh Tidiane te du ma déglu kuy sikk sàkk mel ni Cheikh Amid euh, euh, Abdou Hamid Sarr moom ko wax Med Med Sarr mu ne ko yow yaay lubb lubbaa bi <coughs> yaay li gën a sell ci mbir yi ci ñu yaraate yaraate kat yi yaay ki ci gën a sell gën cee kawe te nag lubb lubbaab yombul ci nii hmm? hmm? bu ko defee euh, keneen taggaat ko moom it bokk ci ala yi ne maa huwa illa saaxibu illa huwa saaxibu waqtihi wa ala yadayhi faydatu tijaani dégg nga wa ida aradta ala alqaraa'ini xaaluhu fiiha ilayhi yushiru kullu banaani mu ne bàyyi daal du dara lu mooy ne mooy borom jamonoom jamono moom mooy borom jamono ji te ci ñaari loxo mi la faydatu tijaani feeñ boo ko tëkkaleeg maas yi ñëpp moom la ñuy joxañ ba ñëpp bàyyi bu génnee ñëpp fàtte ñëpp maanaam maanaam jëmmi zaahiram rek ba ko xoolee teg teg teg beneen beneen sëriñ bu mën a doon rek bët yi moom la ñuy xool da kii buuru ban réew la hmm? te xaalam xaalu miskin la doon su ko defee kon caaxaani Hamid Sarr yooyu dégg nga fii lañ ci yemandi ba beneen yoon incha allah waaye daal ñii ñëpp jàpp na ay soskat lañ ay narkat lañ en tout cas moom tuumaal na ay mbokki jullitam xéeféer te ku jàng tuuti rek xam ne loolu moom ñooñ duñ xéeféer yonentu na leen boo tuumaalee nit xéeféer bu dul xéeféer yow yaay xéeféer pour wan la kii wax ni kan la weer na boppam ci wax loo xam ne alquran daf ko seedal ne moom bokk na ci fenkat yi waaye ci yàlla mu noonoo wëlli yàlla sëriñam tagg wëlli yàlla boobu tagg koo xam ne sëriñam def sëriñu sëriñ si kon moom tagg xas na sëriñ koo xam ne sëriñam def na mooy sëriñu sëriñ si kon moom xas na sëriñ yëpp amatul sëriñ bu mu mën a tagg lii laa doon wax naan bëgg jib eh, Mikaayil bañ Jibril moom loolu la def yàlla ne déedéet boo noonee kenn ki rek noonoo keneen ko defee xas na koo xam ne su kayru ji daf ne Cheikh Tidiane bu dee xaatam kooku mooy fasu bi moo tax ñu tuddee jaaru bi jaaru hmm? wax jikko yoo xam ne nii bu dee lu baax rek boo demee fekk ko ci bàyyi bu dee lu bon la nag ci moom la jugee ci moom lay dellu ñu ngi <coughs> gàttalaale foofu wax ji in la al islam astatuma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa